Touba ca kanam lu ñeel commission sociale bu Touba ca kanam ci taxawaay yu am solo yi muy taxawee ci jamonoy tabaski bi ñu tuddee ko social tabaski mu ciy dimbali néew ji doole yi ci jox leen ay yére yu ñu mën a sol ci bésub tabaski bi muy ay yére yu bees tàq ak yu mucc ayib lool waaye tamit di ci taxaw yenn ci borom kër yi ci ay koppar yooyu des na ci mën a suturlu ci bésu tabaski bi loolu lee tax na banque bii di PAMECAS di banque bu yàgg lool ci jëflante ak Touba ci kanam ci saa yu xew-xew yu mel ni amee mu ñëw indi participation ci li nga xam ne moom mooy social tabaski bi lee loolu lay nekk lu mu yàgg di def lool moo xam ci social korité bi la wala màggal wala social tabaski saa su nekk banque PAMECAS dina yëkkati ab lim bu ama am solo moo xam nature lay doon wala espèce jébbal ko Touba ca kanam ngir mu taxawu ci néew ji doole yi nekk ci dëkk bii di Touba ki jiite woon délégation boobu di Serigne Moustapha Gueye bu PAMECAS Touba. PAMECAS mutuelle d'épargne et de crédit la ñu tuddee ko SFD. nga xam ne ni olof yi wax naan lépp ñëpp la lu ne ku ne def ci ne lu askan wi moom tamit la bokkul ak banque yi nga xam ne ay privé ñoo koy moom daal di investir seen xaalis bu ko defee ña fay nekk ay client la ñuy doon bu ñu paree ñoom ñu jël seen bénéfice seddoo mbaa ñu yóbbu seen dëkk PAMECAS ci doxalinam day def heure bu amee résultat lenn li da koy delloo ci askan wi li ñu tuddee fonds social bi ci des boo ci xasee tijji compte da nekk membre membre nag dangay bokk ci ñi moom banque bi ba nga xam ne da ngay am droit di xool lan moo ciy dox ak lan moo ci doxul bu aajo jooyanti tamit nga jàpp ci kon euh, niñ koy defee at mu jot xëy na dañ daan def bu bu ñu jëlee ci fonds sociale bi dañuy dem jàppale ci daara yi jàppale ñi nga xam ne tamit dañu seen yaram dañoo sutante ñu mel ni ñuy def dialyse fale ci hôpital bi di xool tamit ci askan wi ñi nga xam ne dañoo toll ci aayo leen jàppale ñu yóbbu ci sunuy barkele yóbbu ci yenn jàkka yi waaye li nga xam ne bir nañu mooy lépp loo xam ne dañ koy jëmale ci askan wi bu ñu bëggee mu yegg te gaaw te duñ dañ ci am yaqin ànd kook Touba ca kanam da cee gën a gaaw te gën cee wér kon xëy na lii du guléet waaye ñun de maanaam taw feex la ci ñun waa pamekaas Touba xëy na bu may wax pamekaas nag dama ci béral ba direction générale UM PAMECAS ndax fi nekk séq nañoo Touba ca kanam benn partenariat boo xam ne wax dëgg yàlla fësal nañ ko keroog ci bisu màggal gi kon jéego yooyu ñu doxoon ba mu egsi foofu moom la ñuy jéem a mottali sunu kémtalaay kàttan xëy na di sàkku ci kilifa yi ñu jàppale ñu ci ba ba ñu gën a mën a jekku liggéey boobu nga xam ne dañ ko fas yéene ànd ak Touba ca kanam euh, liñ fi indi nag wax dëgg yàlla euh, xeeb nañ ko xëy na di ñaan sëñ bi mu dolli ñu ñaanal ba ñu ba mu gën a takku ndax cinq cent 500000 dong la te gëm nañ ne bu résultat yi gënee baax fonds social bi day gën a yokk bu ko defee ñu gën a mën a ànd ak liggéey bi waa Touba ca kanam ndax liggéey bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy liggéey jëmale ci askan wi. ci loolu lee Serigne Moustapha Gueye dellusiwaat na ci njëriñ yu am solo yi nga xam ne banque PAMECAS ameel na ko askan wu tuubaa ci képp koo xam ne ubbi nga fa compte. yow mi am compte Pamecas bu fekkee da ngaa am nit ñooy boot masalan Touba fi mu nekk comme daara yaa ngi fi te ñooñu seen prise en charge médicale dafa xaw a sooxe waaw nit ki am compte Pamecas mën naa boot ba juróom-ñeenti ndonga te ñeent fukki dërëm dong leen di cotiser par weer ba pare ku ci jagadi mën nañ laa yóbbu ci hôpital yi nga xam ne dañoo signé convention ak Pamecas prise en charge 70 pour cent bi PAMECAS moo koy fay bu fekkee pharmacie yi ñu agréé tamit 30 pour cent yi PAMECAS moo koy fay kon loolu ak jàppandil la jëmale ci askan wi bi ci des mooy wàllu finance islamique PAMECAS Touba am na benn guichet boo xam ne dédié à finance islamique nga xam ne finance islamique moo ko tax a jóg te yàgg na fii mi ngi fële ci gaar bu ndaw ñu tuddee ko guichet finance islamique kon pour wax ne wàll woowu tamit PAMECAS yàgg na cee liggéey te fas ci yéene ànd ak Touba ci kanam ndax tamit li nga xam ne bokk na ci liy dooleel ab kees mooy képp koo xam ne war nga fa mën a tijji compte wala mën nga faa tijji compte boo ko tijjee jàppandal lay doon bi ci des euh, euh, masalan ñi nga xam ne ay mbokk taalibe lañ di yëngu ci sociale bi euh, mën nañoo tijji compte ci finance islamique bi te finance islamique PAMECAS dañoo am li ñu tuddee charia boot nga xam ne lépp loo xam ne dëppoowul ak charia du duñ ko fekk. ginnaaw yooyu yoo julee Serigne Moutada Mbacke mi nga xam ne moom moo jiite commission sociale bu Touba ca kanam yëkkati ay kàddu ci turu Touba ca kanam nooru daaree nii. barab bi ngeen ñëw muy siège Touba ca kanam bi bokk na ci barab yi nga xam ne miin miin ngeen li ngeen fii ñëw bari na eh, ci màggal geeg ak yu ni mel kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci jëf yi ngeen jëf eh, yaa ngi wax sa biir kàddu loolu di wax ne yéen a koy xeeb waaye ab lim la boo xam ne nii bu ñu bari defoon noonu rek li ñuy bëgg mën naa am di leen jaajëfal bu baax nag ci taxawaay yi am solo yi nga xam ni jamono ju nekk yéen a ngi koy def di ñaan suñu borom defal leen ngeen gën koo man doon eh, wax nag ndax bu fekkee ne man ngeen dara dafa fekk ne loxo yi ñu dëkk ci dëkk bi ñoo ci dugal seen loxo ngir ngir ngeen mën a man man dara kon li leen mën a jàppale ji ci saayir mooy ubbi fa ay compte ak fexe ba tamit versement yi di fa am loolu mooy mooy tax ngeen mën a am ay bénéfices yoo xam ne dana leen mën a jural ngeen mën action yu mel nii kon ñu ngi ciy ñaax suñu bopp di ci ñaax képp koo xam ne nii aju ci Touba kanam loo man ngir ubbi compte ci comme Pamecas te dafa mel ne ni mu waxee léegi tànn sa bu la neex la am na ci biir Pamecas finance islamique boo xam ne nii li islam bëgg koo jëflante ci wàllu alal loolu lañ fay jëflante kon ñu ngi soññ ñi nga xam ne sañ nañ leen a saññi dinañ ko fàttali ngir ñu man faa tijji ay ay compte am gën partenariat tamit ak Touba Kanam ñi ngi ñaanal kilifa yi partenariat boobu ñu gën koo jàpp gën koo taxawu ba yéen jigéen am ci dëkk bi ngeen mën koo mottali ndax bu ñëpp defoon na yéen rek lu ci bari mën naa jàppandi fii mu ñëwee nag fu baax la ndax ñi ngi doon dajale ay yére gis ngeen ñu doon séddale ay yu bari ci biir dëkk bi daanaka am am nañ ci ay yére lu ëpp juróom-ñaar fukki junni yére loo xam ne sax bokkut ak yére yi nga xam dañ koy jëndoon jox ko association tayër yi waaye noonu tamit lañ bëggoon a jàppalanteeg suñu bokk taalibe yi ci lenn ci ay koppar yu a dem cim xar yoo xam ne bu mënta jënd am xar tamit dana ci mën a loolu ñu ngi ko doon dàkk ci fanweeri million waaye jamono bii rek li fi nekk ci ay nit ku leen bëggoon jàppale fanweeri million dana dana ëpp kon nag bu ngeen ci dugalee lu tolloog téeméeri junni dañ leen ciy jaajëfal bu baax a baax ndax lu mu néew new dana am ñu mën a ñu mën a lijjanti di ñaan tamit yeneen société yi nga xam ne ñoo ngi ci dëkk bi ñu yëf ñu roy leen ci jëf yu mel nii ndax dëgg la lu baax la lu ñu war a sant la waaye nag warugar la ci képp koo xam ne da nekk ci dëkk dafa yaxantu am ay bénéfice la da ngay am ko su néew nga am loo xam ne da koy delluwaat ci dëkk kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax Pamecas tamit jàppalante gi ni jàppalante ku ci Touba Kanam lu ci ëpp solo mooy ak yëg dangeen ngeen ko am ci kuréel gi mooy du ngeen def lenn loo xam ne nii wala lu ci bari ci lu ngeen di def da ngeen ko yëgal waa kuréel lépp lu kuréel gi yëg def di def tamit léeg bu ñu leen ko yëgalul sax dañ leen ciy gis ndax social bi ngeen jàpp nii am na ci ay jamono yoo xam ne nii mbir dana ñëw te duñu leen ko yëgal te teew ngeen ngeen dugal ci seen loxo kon ñu ngi ñaan suñu borom gën a dëgëral kuréel gi gën leen a nangul liggéey bi ngeen di liggéey waaye ci tuubaa ci kanam gi ngeen ko jaar sëñ Touba rek tax yàlla ngeen ci tasee gërëm ak tawfeex yéen ngeen jëf. banque PAMECAS dina wéy di ànd ak Touba ca kanam ci mbooleem ab jëflante bopp itteewoo na ko ngir liggéey bi gën a mën a jëm ca kanam